waxuñ dañuy jàmb daa man. masa coono laa dëkk tagg nga ma d'accord. damaa nekk en direct nii ni ma bëgg mu leer. dugaluma la nag yaa ngi yaa ngi orienté. Balla de dafa voyagé wala mu ngi Sénégal. kon très bien merci wala xam nga réew mi daa toj te man ku ma lu ma bëgg xam yow laay woo jërëjëf dinaa ko leeral boo buggee te ma ma dugal la nga leeral d'accord kon xaaral léegi yéen bëggoon xam Balla Gaye ndax daa tukki wala tukkiwul hmm. léegi déglu leen allo Ketchup. waaw lay ziar di la Massaw. si ngi lay nii la. Hmm. diggante Balla gay 2 ak ni ku ne woon loolu dana am. dëgg la. luñ ko gëm Balla gay 2 Tyson. Hmm. foofu la jaar ak ay magam. dëgg la foofu la Boy Niang jaar ak moom donc làmb nii la. dëgg la maa lay nuyu. lay fay maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay delloo ziar. maa ngi lay jox sa wàccuwaay. di ñaan sama appel bi. Mm-hmm. fekk la ci jàmm. Mm-hmm. ak ñi nga bokkal plateau yëpp. Mm-hmm. di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. amiin. ñaanal kilifa diine yëpp. waa kër Cheikh Cheikh Sadbou. murit laayan xaadir. di nuyu wasil sëñ Muntaxa Basiru baax. ñu ngi leen di békkee di leen siyaare di leen kontaane baax a baax a baax. noo dundee démb euh, bërki démb làmb ji le premier janvier. waaw gis naa coono yi nga ci daj da cee daj ay coono moo tax dama na mujj sax yërëm. dëgg la dëgg la. Mhm. ah ñun moom ku ñu xam-xam ni suñuy nit moom bu ñu xewlee. Mhm. dañ ciy dem ak suñu kéemtalaay kàttan. Mhm. te xaar ñu ci dara lu dul ndam. ndax ñun ay nitu ndam lañ. waaye daal ñu leen di wax ni daal àdduna. am ak ñàkk moo fi am. Mhm. ak wut ak am ak bañ am. Mhm. Ah, waaye Balla Gaye ku xam-xam ni champion. yoon na te champion lay bëgg booy ñaan ak bu baax a baax a baax. Mhm. ndax bëri na bëri bu set. bëri neex na bëri wane na jàmbaar. boole na doole bëri na daan na Balla Gaye jël bu leer nañ. Mhm. Balla ci biir géew bi. Mhm. parce que ñoom ñaar ku ci dee la tey ñun ñëppay dem jaala ji ko. Mhm. mais làmb foo ak ree la mais dañuy neexal ba mu neex. waaye nag yàlla jox ndam dañuy xam ni yàlla ko jox ndam ni foog Sénégalais yi xam la ak ree. nekkul yëfi ranking. mu nekk yëfi noonu. nit ñi yéenewuñu yéeneen maanaam sénégalais bari na coow trop. mais xool bi dara newu ci. te yéenante wuñ dara lu ñaaw. Mhm. nañ xam ni c'est le Sénégal ki gañ. Mhm. lépp lu ñu fi def rek neexal la ak bëggee. Mhm. ak bëgg bis di jar. moo tax ñu koy def waaye dara loolu moo tax ñu koy def. waaw d'accord pour ma bañ la téye léegi leneen li ma bëgg mu leer ba nga koy wax léegi Balla Gaye 2 dafa dem voyage wala mu ngi Sénégal. ñoo reeraloo li ñoo reeraloo li ñoo reeraloo li. dégg ma fan ngeen reeree Paris wala Sénégal. dégg lu wala wala fan ngeen reeree wala Sénégal. ñoo reer nii ñoo ngi man maa ngi nii toog. waaw ah, na. na wax ci suuf ko na wax. ne man la Balla Gaye maa ngi leen di dégg. barki Serigne Bamba Xaadimu Rasuul Balla Gaye ah non gëm gëm nañu ah, ah, bu yàgg la. bu ñu indiwaat ko loo xam ne xam nga te loolu baaxul. Mm-hmm. nit da ngay da ngay da wax lu wóor. Mhm. ngay def lu mais bi mu bëree la. ok ok bëree mhm. boobu la mais Balla Gaye nii toog fii di la dégg. d' parce que dama ne Balla Gaye ak euh, professionnel bi mu bi muy woot wootee di ko doxee. Mhm. bu bëreeg Boy Niang ba pare. ak li waa Gaston production daj ci làmb ji nii. ba fi mu agsi tey bu bëree ba pare ak lu mën am dina toog. respecté contrat comme ni mu ko defee woon ci dernière face to face bi. Balla Gaye Balla Gaye sportif la. Mhm. Balla dafa gëm yàlla. Mhm. Balla Gaye moom defal nit ñi fi mu nekk nii. Mhm. parce que Balla Gaye daan na fi tàkkusaan bu ne. Balla Gaye làmb su ko dara. wallaay Balla Gaye daan na fi Yékini. Balla Gaye ba muy daan Yékini kenn ñemewut a bëri. dëgg la de. daan na fi ku ne daan na fi Modou Lo ñaari yoon. Balla Gaye daan na fi ku ne. Balla Gaye daan na fi Tapha Tine bi gën a punkal ci lamb ci. Balla Gaye ndam lu ne indi na ko ci làmb ci. daan daan fi Tyson. daan fi Tyson ba muy nekk Tyson. daan Gris Bordeaux. daan Gris Bordeaux kon kooku. Mm-hmm. daan ay champion yu bari kooku buñ ko daanee day gëm yàlla rek. Mm-hmm. yàlla nag mooy maye moo yor dernière décision. Mm-hmm. mooy li ma lay wax neexal làmb kenn du noppi soo gisee Balla Gaye di jar. tey wax di ko jëfee. day amaana am mi ngi perte làmb yu bari yoo xam ne boo jëfeewul woon li muy wax. kon bu demee nii. dëgg la. mais tey neexal bi muy neexal ak jëfe bi muy jëfe mhm. moo tax lii lépp di am. ak bañ dellu ginnaaw. ak bañ a dellu ginnaaw te du mës a dellu ginnaaw. Mhm. waaw dañ koy ñaanal yàlla mu am wér am tan am mhm. gudd fan ak wér. amiin. dellu si waat nekkaat Balla bi mu nekkoon. incha allah mooy ñaan ak encore une fois ñu ñuy félicité bu baax. parce que xale la te mi ngi dem ci làmb. ñu koy ñaanal yàlla na ko sat féexlu. amiin lépp lu mu bëgg ci làmb yàlla defal ko ko parce que c'est le lépp lu mu waxanteeg Balla Gaye bu ko ko kenn jàppee bu ko kenn jàppee Balla Gaye dañu mm. xam ne dañu neexal te loolu mooy jaay làmb ji mm-hmm. man mii Ketchup lépp lu ma wax ci làmb ji dañu xam ne dañuy jaay làmb ji waaye mm. yéen kenn lu bon mm-hmm. entourage Balla entourage Boy Niang tamit noonu mm-hmm. ñu xam ne c'est le Sénégal ki gañ macha allah jërëjëf Ketchup Boucher